bu njëkk communauté rurale la woon ak commune léegi nag ñëpp ay commune la Tasset ak ville de Dakar ñoo yam ak Ngexox ak Kerewan kaw kaw amatul ku ko fi dindi président Macky Sall moo tax kaay yi ci wax ak coow kërti kërti ñun mooy suñu candidat 2024 moom la ñu bëggaat mu jiite réew mi parce que ñëpp wax nañ ko kilifa diine yi moom lañu àndal

depuis 2012 ak légui fo dem man dama dan dem ci département parce que PNDL da ngay wour Sénégal commune yépp ngay dem 46 départements yi 14 régions yi da nga daan dem ci dëkk du am sax piste. légui fofu président Macky Sall goudron la jox Ageroute mu dugal fa goudron ñooñu seen rêve mo doon am piste pour mën bouger donc li mu def fii ci réew mi fu ci nekk nag ni bo demee ñu nek Foundiougne Foundiougne dañ nan Foundiougne rek doyna manda mandat amone problème di dem Gambie pont Gambie bi dañ nan bobu rek jarna manda mandat ñun wa tasset bi tuddé affaire mu ni non c'est faisable non c'est faisable on va on va faire ça sur fonds propres ñu xolante c'était en 2015 il est ambitieux gëm boppam. wolu bopam mais yàlla da lay budget 2000 milliards tay ñu wax ay 6600 plus de 6000 milliards lolo tax señ xabbaan ñepp sax Tuubaa Tiwaawan fo dem këru diine yépp tay fu ci nek def na fa mandarga bo xamanteni ni allah ba pare di len jàppale ci biir ak ci biti respecté leen xam lan mooy gëdd suñu tarixa yi mais loolu mooy secret wu Sénégal c'est important donc nañ ko ñaanal moom président Macky Sall mu yoraat réew mi ñu xool parce que lim fi def ca eggalewu ko sëñ xabaat sëñ président Macky Sall dafa war a eggale coow li bari na mais mo fi nek de ku nek xamna ni ñun ñi ay kaw kawkoon lañu xamuñu tiaxan donc président Macky Sall deug deug daf ñu jappalé ñun kaw gi léegi gis nga buñu tassé ni ñun maire yi fiñ ñu toll xam nga maire commune rurale ñu ëpp ñun nous sommes 434 maire commune rurale ville yi nek 123 xam nga ñun ñoo leen doublé trois fois mais légui buñu tassé fiñ fi ñu toll eh ku nek ngi xog xog yi Euh, réew mi réew mi dafay am ñuy wax di sóob di jéem a xuqtal di jeeg yooyu loolu amu fi dama ni ku kilifa diine yi téye téyel la sa ginnaaw nga liggéey liggéey bii ñun duñu engage di topp nit dofuñu dafa baax ci réew mi moo tax ñu topp ko mooy suñu candidat ca fan yi di ñëw dinañu jóg ñun ñëpp nag ci biir réew tey juróomi téeméeri commune moo am ak juróom fukk ak juróom-ñett 485 yëpp président Macky Sall lañu àndal ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ak ak juróom 485 communes sur 558 ñëpp président Macky Sall lañu àndal département yi 43 la yi nga xam mooy collectivité territoriale 38 yëpp moom la ñu àndal 38 sur 43 waaw lu ñu war a tiit ak li fi def dañuy bañ presse beeg internet beeg rajo yeeg télé yi jaxase nit ñi ba ñu amoon confiance sax commencé kii déedéet affaire dafa leer nañ dama koy wax gars yi fii bu ñuy dem élection ma ne leen opposition bi tase dañ leen dóor ba ñu tëdd. noonu lay demee dañ leen jàpp fi dóor ba ñu tëdd 2019 dañu noo kët kët yi biñ dañoo ñëw président Macky Sall duma leen ba ñu tëdd te yàlla xam ne léegi la gën a neex parce que lim fi def quand jar na ñu falaat ko moo tey koo xam ne xaalis taxu laa jóg dara taxu président am na lépp occupé na poste yëpp mais quand pour la stabilité di pays xool leen li wër Sénégal dëkk yëpp guerre instabilité armée bi nangu na ko lii laa la Sénégal ni dekk ndax mag ñu baax ñi fi nekk ñëw naan ay dañuy taal dëkk beeg dañuy wax waxu dof duñ ko nangu ñun jóg nañu ñun maire yi de ñun jóg nañu 485 lañu pour porter combat bi ca sëriñ si ñun lañu àndal